Euh, information la ñuy wax ba tax na tey euh, fi nga xamante ne moom la ñuy njëkkee muy sorte bi nga xamante ni gisoon nañ euh, ki nga xamante ne moom mooy le premier ministre defoon ko muy Ousmane Sonko ci tolluwaayu réew mi ak ni nga ne noonu lañ fekkee réew mu nekk loo xamante ni lu doy doy war la ak chiffres yi nga xamante ni moom lañ joxe. bu ñu jógee foofu nag dinañ ñëw aussi nag si élection législative yi nga xamante ni yaar naa moom mooy actualité bi ndaxte gis ngeen actuellement nii. ah dépôt des listes yi nga xam te ni gars yi def nañ ko ba pare euh, li ñu jotoon a wax mooy 49 listes mais bu ñu xoolee dafa mel ni dafa wàññeekuwaat bu baax a baax ci kanam ko gën a yaatal waaye ñëw aussi tamit si tête de liste bi nga xamante ni moom lañ def Barthélémy Dias mu nekk loo xamante ni ah, polémique bi bari na ndaxte amoon na li nga xamante ne moom mooy ah condamnation léegi nag dañuy xaar conseil constitutionnel ba xam dina confirmer ah te euh, dina confirmer li nga xamante ne moom mooy candidature ki nga xamante ne moom mooy le maire de Dakar di Barthélémy dina dinañu aussi tamit ci euh, sortie bi nga xamante ni Kader Dia euh, nekk foofu ca Sen TV def na ko ah ba tax na actuellement nii mi ngi foofu ca euh, cybercriminalité actuellement nii gars yi nag ñi ngi toog di déglu xool ba xam ban information moom mooy wàcc foofu mbokk loolu la ñuy faram fàccee faram fàcce ni ñuy def rek mooy damay bàyyi ki nga xamante ne moom mooy El Hadj Gora Cissé mu nuyoo su ko defee ñu dugg ci waxtaan bi El Hadj maa ngi lay nuyu. Ndam ñu ngi lay fay bu baax. Mm-hmm. di am mbégte ak kontaante. jàkkaarloog ñi safoo IM télé international média TV rawatina suñu rib-rib euh, taxaw seetlu mm-hmm. saa su nekk bu yu mel ni amee euh, soppe yëpp woote laaj ñu mm-hmm. defal leen ci ay seetantal dëgg la léegi mm-hmm. nag tey point yooyu nga tudd la ñu war a seetantal kon euh, mbokk yi euh, comme ni ma ko waxee woon ci introduction bi rek point bi nga xamante ni tey moom la ñuy njëkk waxtaanee tey yaar na comme ni ñu koy waxee actualité la ba tax ne rek euh, bi ñuy gisee sorte bi nga xamante ne le premier ministre def na ko ak ñi nga xamante ne ñoom ñooy gouvernement bi ñoo joxe ay chiffres yoo xamante ni muy ci xaalisu Sénégal loo xamante ni dañ ko leb mu nekk loo xamante ni ñoom bi ñu ñëwee fekk ñu fa dara amul trace mu nekk loo xamante ni bi ko nit ñi déggee ak somme bi nga xamante ne moom lañ déclaré dafa nekk loo xamante ni dafa jaaxal ñu bëri mm-hmm. naka nga ko jàngatee waaw euh, jërëjëf Dame am na solo euh, sorti la boo xamante ni bu ama am solo la. Mhm. ñëpp ñu ngi ko doon xaar. waaye nag li ñuy wax ni dafa nekk ci benn contexte politique. Mhm. mooy PM lan moo tax ñu ko doon xaar. assemblée nationale mu waroon def déclaration politique générale. Mhm. Euh, mu toog ba tey mu doog a def état des lieux. te ñëpp ñu ngi ko doon xaar mu def loolu. doon ka ni mbir yi bokkul ndax bi ñu fi ñëweek léegi. li ñu fi li mu li mu ci fekk loolu tamit c'est normal sénégalais yi xam ko mhm. euh, waaye du ma ko gisee nag ni ko yenn opposants yi di gisee mhm. mais war débat bi war na gën a mun a euh, question de fond yi muy mhm. débat yu technique parce que foog naa ñi ci gën a mun a wax mooy ñi gën fréquenté ci ministère de l'économie te ku toll ni ki nga xamante ni mooy premier ministre su la joxee ay chiffres loolu du lu lambatu làmbatu. la comme liñuy wax ci en journalisme muy source. Mhm. source des preuves. Mhm. lu leer la parce que le président de la république ak premier ministre a ah, buñu ñu bëggee information ci réew mi wala bitim réew. Mhm. am nañ ay agents secrets yoo xamante ne ak ay experts yoo xam ne fréquenté nañ mbir mi. lañ leen di tegal loolu kenn du ko mën a euh, teggi. kon léegi nag am na mu joxañ baaraamu tuuma. dinañ xaar ndax état Sénégal sax ci bopam dina porte plainte FMI mhm. ak aussi président Macky Sall mi nga xamanteni mom lañ doon wax ni mom mo jité sax mbir mi mhm. ak ñi nga xamanteni tay tuddu nañ leen ci ku melni Abdoulaye Daouda Diallo mhm. euh, Moustapha Ba mi nekkon ministre de l'économie ak Amadou Ba kon lolu tamit foog na duñu ko wax rek ñu romb ko ni mais sénégalais dinañ ci am lo xamanteni lu leer la ñepp ñu ngi ñi ngi xaar ay gindeeku légui nak moment biñ ko défé Ousmane Sonko nak chef de parti politique la mu nek ci ben contexte bo xamanteni ci lay démé élection législative mu mhm. tok ba moment bi mu def ñu def état des lieux mu doga def li nga xamanteni moy publication bi mhm. amna la tamit leneen loo xam gis nako mu jur ciow muy taxaway ministre de la justice euh, ñu né tontu yi dafa gàtt amna sax ñu né dafa humilier ki nga xamanteni moy PM mhm. non ci gis-gis ak jàngat euh, ki nga xamanteni moy ministre de la justice taxawaay boobu la mën a def. Mhm. ndax tey nit ki bu defee dara def euh, dara ñu enquête ko. Mhm. kooku enquête ba dañ koy da ñi mu concerné ñooñu rek ñoom ñoo ko war a wéetal. Mhm. pour lan gardeel nit ki li nga xamante ni moom moo ko moom. nit ki tamit bu nekkee euh, ni dafa tooñ wala mu juum wala mu def benn mbuxum. am na àq ak yelleef. loolu nag foofu la ministre de la justice. doon waxee mais xëy na Sénégal ni ñuy opposé dafa nekk loo xamante ni lu metti la mais bi ñuy wax tey di fal ku mel ni ministre de la justice mu nekk bañkat kooku euh, mun nañu xool ci compétence bi nga xamante ni moom la am euh, féetewul ci benn partie politique sóoraalewul benn intérêt bi nga xamante ni moom mooy intérêt politique mhm. beneen bi nga xamante ni topp na si ministre de l'intérieur mhm. ak ministre des forces armées ñoo ñëpp dañu d'accord ni biñ leen a fal dañ leen a fal ci li nga xamante ni mooy compétence ñooñu nag fu ñu mën a toog ak fu ñu mën a taxaw ci taxawaay boobu rek la ñu mën a nekkee mais ñu jaaxal li jaaxal ñu bëri mooy après sortie bi mu amee c'est que après polémique dafa bëri ñu gis ki nga xamante ne moom mooy Bougane le premier ministre génn def conférence de presse ñu jékki-jékki Bougane def point de presse est-ce que sorti Bougane bi naka nga ko jàngatee parce que premier yaa ngi premier ministre mi nga xam te moom moom ay information mm-hmm. joxe information yow Bougane en tant que politique nga jékki-jékki politicien nga génn rek né li wax amul affaire politique la mm-hmm. est-ce que lolu politiquement euh, jàppe nga ni lu lu lu ñu rafetlu la parce que le fait que gi nga xam te moo nekk si biir xam li xew mu def conférence de presse mu waroon nekk dañ doon xaar buggaan ñaawlu ko mais dañoo gis ni moom mu jàpp ni manipulation la te ñi nga xam te ñoom lañ accusé ba li ñuy wax def émission bi nii dégg ñoom ñu weddi ko naka nga jàngat jàngatee euh, sorti buggaan ak Ameth bi nga xamante ni gis nañ ko en même temps Sen TV moom it dañuy gis ni souvent euh, day day day boo xoolee même ni buggaan di def la mooy le fait que mu nekk Ousmane Sonko mu waxoo rek da ngay gis ni moom it da ngay weddi sans li muy wax mu teg ko ci fi nga xamante ni peut-être ci ay preuve la ah, xam nga tey Sénégal dafa xaw a grave Euh, nit ñi bi ñu bëgg a nekk fu nekk expert te gis nga tey euh, gis nga Ousmane Sonko ko mën a tontu mooy économiste wala koo xam ne fréquenté na ministère ministère des finances wala ministère de l'économie mhm. Bougane du technicien ci wàllu économie mhm. donc ne am na entreprise am mhm. mais du du technicien amee ndooy people la daan def ci télévision léegi fan la jàngee xam-xamu politique Mhm. kon tey ñooñu <laughs> mënuñu weddi chiffres yi li ma la wax ne du caaxaan euh, mooy premier ministre génn joxe ay information loolu dafa am source yu leer mhm. nañ yum ko jëlee ba pare joxe ay chiffres joxe ay chiffres mhm. léegi nag dañuy xaar après fu wànnante du mujjee gëtam mais askan bi dañoo soxla mu mu leer léegi nag euh, li may wax Bougane wax ko Ameth Ndoye wax ko yeneen politiciens yi gis nga Ousmane sonk soo ko bëggee rey ci politique indil débat politique wala nga attaque ci orientation politique mais gis nga bu dee ay débat détail yii ay débat personnel mhm. looloo tax saa su nekk bu génnee sorti ñoom opposition bi ñooy jël sorti bi song ko def ko buzz ba sa waay bénéficié wu ci bëree bëree bëri mhm. mujj sax waa ji ne ko kii est-ce que moom nekkul sax wax mooy gàllaajam wala wax daf koo jik yooyu tamit opposition bi bu ñu gisee koo xam ne dafa songanteeg président Macky Sall ñu ne làmb ji fi amoon daa verdict ba la xaar ba tey mhm. président Macky Sall bi mu songanteeg Ousmane ko ba pare président Macky Sall moo daanu mhm. dem Marrakech tëdd foofu mhm. kon ku mel noonu mu lay indil ay débat d'idées nga naan naa ko vaar ak naa ko jëli feek déedéet indil ko orientation politique. Mhm. ak ay débat d'idées soo ko bëggee rey. Mhm. ak ñoom stratégie politique bi ñu am ñoom Pastef. Mhm. courage bi ñu am nii mi ngi rey parti politique yi de. déggoo démission AFP. PDS. tas na ñaar tas na ñaar. lu ko indi Ousmane Sonko moo am courage dama daan dem ànd ak ay nit ci biir politique bokk ma ak ñoom gis-gis. ñu trahir ma. bii nag du dem ba assemblée nationale. ay président groupe parlementaire bi ñu demee bii passé ñaata moo am ñett moo am mhm. wàllu ci benn ci benn coalition waaw mhm. ñu def intercoalition wàllu ne dañuy am seen président groupe parlementaire mhm. ah? ak taxaw taxaw ne dañuy am mujj gi ñu ñu finaliser ñu ne yeewi mooy am ci biir yeewi gisoo kee yëkkatiwul Ahmed Aïdara kon gis nga yooyu yëpp moom tamit mu xool carrément def na defanati nii Ousmane Sonko tamit waa Pastef tamit jël seen responsabilité. Mhm. kon Ousmane dafa doon demee di politique nii. Mhm. gars yi nii la ñu jàppee politique. Mhm. ñu jël seen responsabilité. ne suñu Pastef bii la ñuy jël ku ñu ciy fekk. nga fekk ñu gars yi d'accord ñu def ko coalition Pastef. loolu tamit daf lay delloowaat ci courage bi nga xamante ni am nañ ko. ci élection 2019 parce que xam nga ni Pastef. lu néew moo ko jàppale woon ci élection 2019 mhm. te élection yi malgré rëkk-rëkk yi nga xamante ni amoon na ci ak complot politique yi fa amoon yëpp mhm. teewul Pastef moo nekk troisième mhm. mais courage politique boobu nag la ñuy xaar parce que politique courage la ak organisation ak stratégique te stratégique boobu ci la Pastef gagné élection 2024 yi ñu nekk mooy tabbu Cheikh Tidiane Dièye tabbu Habib Sy tabbu Bart euh, kii Jomaay. Euh, mhm. liste Jomaay jàll. Mhm. bi mu jàlloo man man sax damaa jommi ndax tey euh, Ismaïla Madior Fall bi nekkoon ministre de la justice. Mhm. moo ne carte gi yépp li ko faussé mooy ñoom bi candidature Jomaay jàlle dafa mel ni dañ leen dóor yat mais nga xam ne ñun kon ban Sénégal lañ nekkoon. mooy da ngay tëju yaay choisir ki war a doon candidat ak ki warata doon candidat mm-hmm. mais xoola jàkka ji nañ ko ubbee fi mu toll nii mm-hmm. mooy ku mu neex noddal amul mm-hmm. parrainage amul dara ku am 15 millions na nga dem xam naa di nga ci ñëw ci kanam mais sax xam naa comme du nga si élection yi nii tey euh, ñu ñu ñu gis ni 49 candidats lañ lañ déclaroon mais ñu gis ni wàññeeku wàññeeku na bu baax a baax mais naka nga nga ma nga jàngatale li nga xamante ne moom mooy élection législative yi pëccoxoo bi pëccoxoo na de. waaw pëccoxoo na parce que 49 liste la woon. Mhm. ba ci démb bi ñuy tëj 41 euh, kii 31 liste moo fa nekkoon xamuñu nag si diggante bi ndax euh, yokk yokkuwaat na. Mhm. waaye xam nga tey bu dee ñëw na tey nga ñëw après minuit. Mhm. boo ñëwee après minuit. Euh, mën nañ nangu sa dossier mais dañ koy rejeté. parce que ñom ah, dañ ñëw mbind bu xasee ba jot rek. folklore lañ koy japp sa dossier daf folklore. Mhm. mais parce que man dem naa élection bi ma démé élection locale ñun ñi ngi dugg 23h bi ñu duggé 23h minuit fa lañu ñu fekk. Mhm. dañoo fanaan ba 11h ñun ñëpp ci lañuy déposer déposé suñu liste. moo tax boo xasee dugg mën nga dem ba 11h ba midi nga déposer sa liste daal di jàll. mais licencié nga dugg mais licencié balaa minuit. na la fekk nga dugg si biir direction bi mën naa nekk léegi nag loolu li muy wane man waxoon naa ko mooy coow li bëri na mais 15 millions am na ñoo xam ne nag xeeb nañ ko mhm. mais am na si ñoo xamante ni ci yenn coalition yi euh, du caaxaan ci ñoom de mais yenn coalition yi jàppoon ni coow dina bëri tey euh, bu ñu jëlee coalition bi nga xamante ni tey exemple tey euh, ñu ngay wax parce que comme si élection lañ jàppe naka nga ñu nga nga ma jàngatalee nga may jàngatalee li nga xamante ne moom mooy tête de liste bu Barthélémy Dias te pourtant ñëpp xam nañu dañ ko condamné ñoom ñi nga xamante ne def nañ ko tête de xam nañ ni Barthélémy Dias ci condamnation la nekk tey naka nga lan moo tax lan nga jàpp ni moo war a tax ñoom ñu jël boobu risque. waaw benn décision moo des moo desoon muy buur cour suprême mu génn définitif. mais cour suprême waaw confirmé wu ko woon. mu confirmé ko. confirmé woon na ko waaw confirmé na ko. waaw la mooy décision boobu xam nga moo desoon. Mhm. na ko. jeex na. Les décision bi nekk na définitif depuis que ko cour suprême d'a di confirmer parce que dañ ko condamné fait mu dem cour suprême def appel cour suprême a confirmé confirmer condamnation bi waaw kon décision bi mhm. décision boobu bi mu génnee daf ko condamné définitif La condamnation boobu nag bu génnee euh, Barthélemy Dias Diaz, mën a bokk ci ay liste léegi nag lan moo ñu dugal ko ci ay liste

waaw buñ ko rejeté waaw ah coalition bi ñoom ñooy perte rek ñoom ñooy perte di li dal li daloon yeewi askan bi rek moom mooy ñëwaat ah waaw mm-hmm. loolu rek la mm-hmm. parce que parce que affaire bi fi mu toll nii tey amatul yeneen possibilité mm-hmm. moo tax ku ci nekk ah buñ fi buñ fi buñ fi rejeté tête de liste bu kii bu Sonko bi woon bu Sonko fu mu seen liste nationale ba ñan ñoo dem ay suppléant jeex na mais tey euh, stratégique politique la. mais mhm. nak, après tribunal politique muy conseil constitutionnel ban tontu les indi à condamnation Barthélémy Diaz. boobu. mais li jaaxal ñu bëri tey mooy mooy apparition. Mhm. pure ci biir coalition boobu. waaw xam nga pure. est-ce que Nekul, Nekul moom moo si nekk le grand perdant pure. Waouh, xam nga tey pure bu ñu ñu euh, Barthélemy Diaz ñan ñoo troisième. élection présidentielle pire. Wow. Hein? Ah, pire troisième. troisième effectivement. Je mhm. mhm. <laughs> politique pire te pire base de données. Mhm. même si nous avons ci say élection la may visibilité. dinañ campagne kanchan campagne bu neex mhm. ba paré am détermination ba paré tamit pire sen for moy ña fa nekk du wor ñoom ben git lañuy ñuy déglu muy ci ci jaaxal sénégalais yu bari waaw pire ak taxaw sénégal ñoo nekkandoo won bir yeeg askan bi ñu dem ba ci bi ñu ne ay wor da cay am ñu dakk taxaw sénégal bir yeeg askan bi ñu demat ba ci bir ñoom ñu àndaat mais hélas boogul politicien yi kañ lañ yàpp c'est que problème mooy politicien yi hélas <laughs> politicien yi wala man c'est que lu ma mënul comprendre wala ñoom dañoo yaakaar ne sénégalais yi toog di leen seetaan xanaa dañoo jàpp sénégalais ay dof lañ wala jànguñu mais nan lañ mënee taxaw ñu gis ñoom ñu taxaw barki démb Ndiaye yàggul ñu rayante seen biir fii nii taxaw wax ñi leen génnee ci yeewu askan bi ak ñoom seen bopp waa taxaw Sénégal lim si waa piir yi xam nga ak ñi ngi ci lim yëpp ak ñoom Déthié Fall ñoom yëpp ñum leen ñu gisaat tey ñoom ñu àndaat waa léegi mais est-ce que est-ce que loolu ban jàngat nga ci am nan loolu nan ngay jàngatee loolu politiciens ñoom ñoom ñoom seen kàddu ñoom mooy valeur mais ñi nga xamante ne dañ leen dàkkoon démb ne baaxuñu ay bugaan lan la fi yàq Khalifa Sall ah biñ ko wee si biir askan bi waaw yaa ngi comprendre problème couleur waaw beneen bi mhm. ñii ñoom Pape Djibril Fall ñoom Thierno Bocoum nii élection législative passée ak seen coalition mhm. lan lañ yàkkanteewul ñoom ak yeewu askan léegi lan moo changé ci diggante si si si moo législative yi passé mm-hmm. ak yii ba ñoom ñi nga xamante ni ànduñu woon démb bañante mm-hmm. ñu ànd tey xam nga loolu nag si lan la lay yóbbu mooy ñun ni ñuy politiquer moo logique mm-hmm. mooy léeg-léeg suñuy principe dañ koy teggi ndax suñuy intérêt mooy offre politique xam nga dafa am comme ni ngay amee offre euh, Orange Tigo loolu day amé ci biir politique. ñun suñuy offre politique moñu gëna ñor ñu défendre suñuy principe mhm. politique man mënuma dakar ben militant pire demb yaangi tag Ousmane Sonko. tay nga taxaw diko ko wax tey ñëw nga xas même bu dee sëriñ bi. mom mo mo moom mo wax Ousmane Sonko lo xamanteni tay gis-gisam la ta man sa mhm. dama ci d'accord ndax tamit lu mu metti metti tamit wax deug waxtaan wax deug ci la ba muy metti euh, sëriñ bi carrément taxaw na. pour xeex Ousmane Sonko jël ay risques yu metti mhm. waaw doon ko ni nag dina am yenn wax yoo xamante ni dina ko wax da nga naan carrément da nga koy comprendre rek nga jàll doo ci mën a tontu. Mhm. parce que loolu ay loo xamante ne dañ koy mën a réserver. Mhm. mais diggante sëriñ bi parce que tamit sëriñ bi foog tamit ñu comprendre taxawaayam sëriñ bi doon ko ni bu dee moom mooy président parti piir wàccagul ci terrain bi jël risque ne moom mooy doon candidat bi.

est-ce que amul lu xew loo xamante ni. parce que parce que parce que dafa am loo xamante ni lu tax euh, mu xaw a doy man man mënu ma la jàppale ak risque yi may jël ma nekk président falu seeti ñëpp wala boo seeti ñu bëri te seet su ma est-ce que jàppoo ne am na lu lu li naan lees waxul. waaw xam nga tey ci visite ci kaaw gis nga président ba mu fa demee ba taw bi di taw ci kawam. Mhm. ba ñuy wax di ko téye parasol mu ne non non damay damay damay dox comme nit ñëpp. Mhm. ba mu demee carrément porte parole bu lu mu wax mu ne sëñ bi de euh, euh, euh, président de la République fii la waroon njëkkee waaye ba mu njëkkee toog yow la ñëroon njëkk a seet si waaye sëriñ bi dafa ne dafa tawat président ne comme du teggin nit feebar nga dem di ko rey ay wax ak yooyu. Mhm. moo ma bàyyi ko wér. loolu génneewul ci cadre président de. porte parole bi porte parole bi. Mhm. daal di confirmé loolu. kon ñeneen ñi mën a comprendre quoi. Mhm. dox na dem seeti sëñ Moustapha Sy euh, ak fan la sëñ Moustapha Sy di nekk te ku xam sëñ Moustapha Sy xam ni yor na organisation boo xamante ni. pour mhm. ko du nekk loo xamante ni lu yomb la. beneen bi tamit léeg-léeg ndaw. am na yoo ne doo ko mën a wax ci télé publiquement. Mhm. léeg-léeg tamit ndaw bi yóor bi sëriñ bi di yóor di muy dem léeg-léeg ci homme politique bi. Mhm. xëy na tamit ñàkk a jokkalante yooyu. Mhm. sëriñ bi mën na koo dégg am nu mu ko déggee am nu ñu tontoo loolu tamit mën na jóo li ngay wax lees waxu. waaw lees waxu. xam nga tey jël ca tuumaal nañ ko ba mu génn daal di tontu na li ñuy wax ci moom du dëgg. Mhm. mais léeg-léeg yenn diggante yi nga xamante ni mooy am bu fa nekkalante amee rek yooyu mooy war a yenn jur gi mhm. te xamante ni di diñ ko leeral mhm. mais daal li ma li ma li ma li ma gis mooy euh, lu toll ni Pastef ñàkk dem ak moom ay élection dina jur risque yu bëree bëri te gis naa ni tey euh, pire bu jógee ci élection yi euh, dina am lu mu jàngat bu xoolee toog yi mu amoon ci député yi ak yi nga xamante ni moom moom lay am ni tey. Mm-hmm. tey tey risque la. ci mm-hmm. parti euh, coalition yépp nag. Mm-hmm. parce que muy fiir muy yeneen ak yeneen yi nga xamante ni nekk na. ci élection yi ñu jël. élection yu am enjeu. élection yi la yoo xamante ni. gis na ku ci pare. xam nga président Macky Sall bi nga wax élection deux mille vingt quatre yi bu jeexee di nga gis jàngal. mais après lan moo xew président Macky Sall ñu ne dana dem bay coaliser président euh, Wade. ah mhm. ñu ne waa Abdoulaye Wade danañ dem ba mu jaral leen Doudou Wade ni mu toll ak risque yi mu jël mais ak maire Waré Sarr ak maire Waré Sarr ak mhm. ñooñu ak xam ne coow effectivement ngay comprendre mhm. ak ay Idrissa Seck dem àndalaat def ne dañoo tudd euh, xaw ma ànd euh, taxaw wàllu wàllu Sénégal ku la waxoon loolu di ko gëm te li te ñoom nee li leen dal si politique yëpp Macky Sall moo leen ko teg Macky Sall moo leen Mhm. Sonko mhm. mhm. situation force pour mais mais mais problème est-ce que sénégalais yu bari comprendre parce que actuellement ni xam nañ bisu Pastef euh, coalition bu amul majorité assemblée pour ñu gouverner Sénégal du yomb est-ce que enjeu enjeu boobu aussi tamit est-ce que sénégalais yi ko parce que parce que lu tax moo lool xam bu fekkon tay ay ay ay ay ay opposant lañ yoo xamante esprit bi ñuy demee mooy tey bu président andi loom tam luy luy jàppale Sénégal la ñëpp dañ ci ànd japp ci mais li ñu gisee ku melni ne actuellement ni diko ko opposé nga xamanteni da ngay japp ni ki tay bu ñëwé assemblée euh, taxaweewul taxaway lo xamanteni tay bu ñuy andé lu baax mu ñu ñëw ñu voter ko mais dañ ñëw andi taxawayu tay bo xolé ni mi démé moy luñ fa andi ma xëpp ci suuf parce que soo xoolee par rapport ak discours yi muy def da ngay sentir ni kii dafa ñëw pour man ni ma koy jàppe dafa ñëw pour peut-être ñëw ñëwul pour opposer comme comme comme opposant mais dafa ñëw peut-être pour andi benn tension boo xamante ne dafay am si digganteem ak ñi nga xamante ne ñoom ñooy pouvoir bi est-ce que tey sénégalais bu ñu comprendre enjeu comme ni nga koy waxee bi nga xamante ne am na ci élection yi duñ def attention bu baax baax xool ni ñuy voter. waaw non dëgg la xam nga tey sénégalais dañuy def message politique assumé 2024 ci élection yi passé Mhm. C'est un message politique assumé. Mhm. question de fond moi sénégalais am confiance la coalition Diomaye président. Mhm. confiance sénégalais c'est la première fois nous nous un président ñu ko ci 11 jours mu joxal mu falu mhm. léegi nak fi def nañ 6 mois mhm. ay élection ñëw mhm. léegi nak confirmation ndax sénégalais li ñu doon wax dañuy confirmer ba tay joxat gaay majorité pour ñu mën a liggéey parce que mom bu dee moom ñàkk nañu amuñu majorité mom euh, opposition bi ma gis ak Sénégal lu ñuy politiquer lu ñu politiquer ci xalaat ci ay idée Mm-hmm. ay détails détails effectivement ci ay débat personnel dañuy mm-hmm. politique mm-hmm. léegi nag moo tax bu ñu ñàkkee majorité bii nag ah pour ñu gouverner dina jafe ndax la leen daloon fii moo leen di dal te beneen bi président même bu amul majorité mu demaat tamit defaat ñu tasaat assemblée national loolu tamit risque la ci ëllëgu président de la république mais tey euh, ñu tëjee ko. tas benn yoon ko ñaari hmm. la quoi. ci hmm. mais nga ni risque la. ah boobu bu boobaa ok loolu loolu dinañ ci loolu dinañ ci gën a dinañ ci gën a dinañ ci ñëwaat gën a développé mais ñu tëjee fi nga xamante ni tey euh, moom mooy euh, Kader bu seen TV mu def ay propos yoo xamante ni dafa accusé ñi nga xam ni ñoom ñooy la police. Tay, eh, ba convoqué nañ ko fi nga xamanteni mom moy cybercriminalité tay eh, naka nga propos yi nga xamanteni Kader génn na lu jëm ci wal immigration clandestine bi. mm doo doonul taalibeem doo doonul sëriñam mhm. wax naa la ba tàyyi chroniqueur moo amul place ci biir journalisme d'accord nag nag chronique nekk benn boroom ci benn domaine ñu wax la nga def ci chronique mhm. nga ci am luñ ci jàng mhm. moo xam ci justice la moo lu ñëw am nga ci xam-xam lu ñëw am nga ci xam-xam waxkat bi dafay wax mu ne képp ku bëri li ngay wax mhm. di nga bëri looy yàq mhm. te soo bëri li ngay yàq kenn du la respect mhm. te ñi la doon jay naan la dalal ci lii dalal ci lii est-ce que dinañ la gunge doo leen sax gis la doo leen sax gis ba pare surtout euh, suñu koor yi man mun naa wax ci police comme moom laa gën a maîtriser soo demee dix yi nga xamante 4 en caractère administratif 6 en caractère opérationnel. Mm-hmm. mais loolu du caaxaan. Mm-hmm. moo tax nit ki kay wax dafa war a nekk koo xamante ni dafa war a maîtriser bu baax. baax a baax a baax a baax. Mm-hmm. li muy wax. Sénégal la ñu gis rek di foowee di wax ci direction police wala di wax ci gendarmerie. saa nga am ci benn nation. sa te xamoo ni muy doxee xamoo ni muy doxee. waaw léegi nag ko moom moo jël risque jël ay responsabilités. tuumaal léegi nag bu demee moom dina leeral beneen bi daal loolu laay wax mooy li yëpp li koy indi mooy mhm. journalisme da ngay dem benn ñu formé la ci terrain bi mhm. nekk mhm. wala beneen bi nga jógee académique nga génnee école beneen journaliste nekkul loo xamante ni dañ koy jël di ko xeex effectivement waaw di ko jël di la di fa xeexee. Mhm. Mhm. li ñuy wax daal mooy. Mhm. du ah. su ma gisee sorti ab gën a garaaw sax seex Yérim Seck li gën a garaaw man dama see seetaan tuuti ma dëkk mu wax wax joo xamante ni Cheikh Yérim sekk taxaw ne waa Pastef fen rek lañuy ñuy def ay fenkat lañ te yow Pastef say moromu bàyyi nekk fa. say moroomu yaay nekk fa say moroomu maam nekk fa nga taxaw nga taxaw ne Pastef ay fenkat rek fa nekk fen rek la def say Yérim Seck wax ko ay sa jub ay sa Jóob Faal gën ko dëggal ngeen taxaw yéen ngeen taxaw yéen ngeen ni ay exemple ngeen saaga nga taxaw carrément saaga ba pare di jiin waa Pastef ay saaga kat ñoom lenn rek la ñu gis dëgg boobu nga wax Pastef nga fa. Ousmane Sonko nga fa. Mhm. ñaata yoon lañ fi def plateau invité fi kilifa bu bokk APR mu ne da ngeen a ragal Ousmane Sonko. Mhm. ragal Ousmane nekkul ci yoon dañ naan carrément nekkul si. Mhm. bu nekkee ci dëgg nag. dañuy gën a dëgëral ci dëgg boobu nga xamante ni ci la nekk. li ma jàngat daal ci Aïssatou Diop Fall ak euh, Cheikh Yérim. man dama naan Aïssatou Diop Fall wax dëgg yàlla. bu dee am na ay mbokk.

ngay da ngay sentir yow ñii defuñu émission boo xamante ni te yow boo boo nekkee xale bi nga xamante ni da nga nekk si média nga war a mën a jàpp si ñoom au contraire da ngay yow yow yow mi ngi nekk jeune nga nekk si média da nga leen di xeeb parce que xam ni ñii li ñuy def nii dañuy jàpp ni dañuy manipuler nit ñi mais seen bopp la ñuy manipuler te li gën a garaawaat est ce xam nga ne ba ci tey si réseaux sociaux yi te loolu dama koy wax il faut que cyber criminalité ñu commencé ko xool démb dugg naa si réseaux sociaux yi dugg ci fi nga xamante ne moom mooy tey euh, ci li moom mooy TikTok du ma wax tur mais am na ñi nga xamante ni tey dañoo tuddee seen ay bopp seen bopp ay leader politique ñu ñu xam fii Sénégal mais dañuy nekk seen biir di def di di def ay ay débat yoo xamante ni mais euh, premier Ousmane Sonko la ñuy jàpp di ko saaga saaga yu ñaaw te ñu ngi fi Sénégal jàpp ki nga xamante ne moom mooy président Diomaye di ko saaga saaga yu ñaaw xam naa tur bi ah xam naa tour bi mënoon naa si jaar parce que bi ma duggee commencé wax rek dañ ma génnee parce que dañ ma génne li may wax arrangé wu leen maa ngi gis ki moom groupe bi live yi ñuy def si si si euh, TikTok bi maa ngi gis automatiquement mu génn mais ki moom groupe maa ngi gis mi ngi dem di xool parce que le fait que def si daam présentateur maa ngi gis mu dem di xoolaat sama profil parce que xam nañ ci média laa nekk loolu damay wax waa cyber ñu commencé di ko xool parce que am na ñoo xam ne dañoo nekk si réseaux sociaux yi jàpp tey ki nga xamante ne tey moom mooy le président ak ki nga xamante ne moom mooy Sonko di ko saaga di leen saaga saaga yu ñaaw ñi ngi Sénégal fii moo il faut ñu commencé dugg parce que tey sa kilifa président de la république kooku institution la da nga ko war respecté nit a ko waroon saa sax mu jaral nga rayante ak moom mais ay doomu Sénégal nga gis ñoom te ñoom ñoo tijji seen ay euh, seen seen TikTok nek di saga saga ñaaw kilifa yi te koo si wax deug so def attention da lay génne te Sénégal li ñu wara def moom mooy nan la kan nañu wara mëna mën nit ñi ñuy roy lu baax di wax lu baax nit ki mën nga bañ a ak moom Ousmane Sonko wala Diomaye wala muy Barthélémy Dias wala muy xalifa Sall wala ku mu mënti doon mën nga bañ a ànd ak moom mais booy wax ci moom waxal lu rafet mais taxaw doom jàpp nit di ko saaga di ko saaga ba maa ngi dee ku taxaw ne am na ku si wax sax ne Ousmane Sonko wala Pastef ku leen faral boo dee safara nga jëm xamal fi ngay centré nag mooy gars yi ba léegi comprendre guñ Ousmane Sonko mooy débat dire bi ñu war a dem Ousmane Sonko ñoom ñu fa dem mais débat personnel ngay gis. pour ñu exister. parce que débat détail yi dafay mm-hmm. euh, lu leer bu ñu joxee chiffres ba pare kan moo ci def débat technique. kenn kenn lu dul ay manipulation waaw kenn ay dugg na fi na léegi au ñu jël mbir mi mm-hmm. toj ay borom xam-xam indi ay expert ñu wax carrément le président Macky Sall la moo ci nekk dëgg ak Ousmane Sonko li mu indi tey lan moo ciy dëgg yi ci Ousmane Sonko indi te ragal nañu ni loolu amul ñu dem xooli source yi. Mhm. après ñu defal sénégalais synthèse fiable. Mhm. kan moo ko ci def kenn defu ko ci. te li garaaw sax mais ñi ni accusé ñi ba léegi déggoo ko ci wax c'est que loolu moo garaaw te te te boo xoolee somme bi ñu tudd. mais man parfois dama naan Bougane bu ma toogee ma seetaan ko somme bi ñu tudd. hélas xam nga somme boobu somme bi ñu tudd dëgg dëgg dëgg lan la war a mun lan la waroon mën a defar ci Sénégal. non lenn moom xam naa ko mooy mu wax dëgg yàlla nag daam réew mi dañ ko doon caxat caxat réew moom dañ ko doon caxat caxat yi bu ñu tegaloon bind rek salle de rek lañ ko daan tabaxee loolu mën a tabax ko mhm. ba jëndal xale yi ay banc. Mhm. ak yeneen ak yeneen. Mhm.

du ma du ma du ma du ma tëmb. mais yow nga xool conscience boobu ak population bi sa yaay bu mënee dem tegg benn natt bu 3 millions. Mhm. jox ko doomam wala 500000 au lieu que mu jël jeune ku nekk benn jeune entrepreneur. mu dama mu démarré oh, xanaa xanaa xamoo li jëm si affaire immigration clandestine bi xam naa internautes yi ñuy seetaan. lu tax bëgguma ñu développé sax man dinaa si dinañ si def café parce que di wax internet yi rek café weekend inshallah dinañ ko reprendre commencé ko euh, invité bi euh, dina nek ki nga xamanteni mom moy monsieur Jimbera ah nga xamanteni mom bokku na ci ah ci candidat yi nga xamanteni ñom ñoom ñoo nekk fii ci Keur Massar dinañ de toute façon xamna buñu paré ci monsieur Jimbera dinañ def spécial immigration clandestine nga xamanteni tay autorité yi dinañ ci gëna dinañ ci gëna dinañ ci gëna dinañ ci gëna jang inshallah hmm allah man tay fi amna boy nekkon Keur Massar biñu waxtane buñu fexé ñu egg Maroc mhm. amee séjour man daal dama jékki-jékki fan yee ñu woo ma biñ ma woowee ne ma non dañoo demoon jàll Espagne bi ñu jàllee ñu ñu téyewaat leen bi ñu ñëwee ñu nangu seen séjour waa Maroc génn. Mhm. contacté naa maire Kër Massar yi. Mhm. mais mënuma woon am retour. Mhm. finalement la ñu mujjee am député diaspora bi. waxoon na dina ci taxaw lu mu mën. tey gis nañ am na ñoo xam ne indi ñu ngi ñaan yàlla ñu bokk si mais chaque jour booy ñu ma doon woo. ma ne leen jox naa seen i yi. député diaspora bi ak contact yi ñu am yëpp def nañ ko mhm. pour ñu mën a dellu si mhm. léegi daal dañuy wax ni ndaw ñi nañu toog ba pare tamit nañu am courage mhm. ci ci biir réew mi kon daal li may wax léegi-léeg sax ñu wéer ko gouvernement bi mais euh, du du moo xamante bi pour nga régler ko dina dina yomb parce que ñiy dem yëgoo leen ba pare tamit pression

mën naa sotti te mën nañ ko régler seeni programme ak seen non dinañ ci gën a yaatal waaw ah, dina dina dinañ ci gën a yaatal insha allah dinañ ci gën a yaatal li may wax ne ci mhm. journalisme mhm. mooy wax dëgg yàlla man de wax dëgg yàlla am na lu may waajal loo xamante ne bu sottee mhm. dinaa milieu journalisme du ko bàyyi carrément de mais dinaa ci wàññi parce que li ma mayoon courage bu dugg ci nga amoon ci ay roykaay nga gis ñii tey nga xaman ñoo waroon doon roykaay ay wax yu bon ak ay wax yoo xamante ni ko dégg li nga wax sànq moom du du du du du de. mooy mhm. étude. moom vraiment. Mhm. Mhm. lépp lu wax biir journaliste. ak dignité nga xamante ni tey te ñoom ñoo ko dañ ko jàng génn ci ay écoles yu mag mais yow miy nekk ndaw boo toogee di leen yi seetaan. da nga leen di xeeb parce que da xam ne ñii li ñuy wax yàlla ma yàlla baal dara dara du si dëgg. xam nga lan moo hmm. gis nga boo génnee ci logique informe informer juste ay nit. yaa ngi comprendre. Euh, la logal boobaa nag dootoo am li nga xamante ni mooy sa Mhm. jërëjëf euh, Cissé ñu ngi wax euh, li ñu amoon si euh, waxtu jeex na ah mu nekkoon débat bu ama am solo si sama baale rek nga joxe sa moo de la fin. oui comme ni ko si sa waxee rek ah di ngeen am possibilité nag moom nag moom mooy xaw ñàkk temps souvent ah, moo tax ngeen gis souvent ñuy ñuy ñuy tëbal ci information yi mais souvent. xam nañ bëgg nañ bientôt incha allah émission taxaw seetlu bi ñu koy andi matinal bi su ko defee ñu gën ah, gën koo mën a yaatal ak rubrique yi nga xamante ni war nañ ci ah, war ngeen ci mën a ànd ak ah, li ñun ah mbokk yi li ñuy wax rek mooy ñi ngi jaajëfal comme ni mu ko Cissé waxee rek groupe IM télé bi yëpp ah di jaajëfal Amir ñoom Lil ñoom Maguette ñoom Karla ñoom Jongma 82 Ziga ñoom Khady ah équipe bi yëpp ah ñoom ñëpp ñu ngi leen di ziare di wax rek programme incha allah bientôt dina démarrer waat ñu leen di wax dig daje rek suba incha allah jaajëf